imam bi nak imam abduka di imam ratibu ko serigne touba bi delo na ñep ci diine delo ñep ci li war julit fu meuna nek lu mu metti metti wala lu mu neex neex neena na li fi wacc joge ci suñu borom ne ko ñep jàppe ci suñu borom la joge waaye waru tax l'islam sëngeem ben yoon mu ñaan julit yi ci niko serigne touba diglé ñu l'islam nee na ñu moytandiku lépp loo xamante ni day féewale jullit yi rawatina senegal gi nga xamante ni ñun ñëpp am na ci ku nu jokk te lépp di lislaam foo mën a bokk koo mën a jokk nañu xam ne diine benn la yàlla la lislaam benn la Seydina Mohamed la sallallahu alayhi wa sallam neen li ci des nag ñun ñoo koy def suñu biir ni ñu lislaam digale ñu booloo te bañ a tasaaroo war na feeñ ci fépp foo xamante ni ay jullit nekk nañ fa rawatina ci bés bu mel nii ñu ngi ñaanal jullit yëpp ñu julli ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah.